Maître Ousmane Ngom ak mbetteel la àndal bi mu génnee ci déglu biñ ko doon déglu ginnaaw juróomi waxtu ci makaanu bàkk li mu xamal rek ci laaj yi ñu ko doon laaj amul dara lu ci bees rawatina ci alalam